My mom mungal, mepet. non mais pot dañuy xaar loy tek ni, loolu waaye yow ki ma wara def soxna nga may wax nga may choisir entre sama jabar ak sama sama sama no. Moussa Djibril limi def dara baax ci jël ay jabar jàmbur mom ngay, c'est pas mom, c'est pas ma cap quoi c'est Moussa je préfère Moussa Moussa il est plus cool plus voilà quoi Moussa toujours dafa am Moussa ne ci Lamar donc je Moussa. <laughs> je dirais Lamar. j'adore ce prénom en fait d'ailleurs Instagram Lamar Ça, moom je ci depuis des années. <laughs> bah Viviane Viviane. <laughs> Viviane parce que dañ ko magalé quoi Viviane mooy dañ ko xam mais Viviane amour d'enfance je préfère l'argent. Ouais, parce que si t'as l'argent, t'as le pouvoir, quoi. Je dis karma. Donc, euh, c'est laissons autant le temps, voilà, quoi, de faire sa vie, quoi, tu vois. Vengeance, non, je préfère carrément. honnêtement je préfère couper parce que voilà quoi plateau dafa il bëgg def li ngay def dem sa yoon quoi jàll ci leneen donc oh ce sera difficile parce que basket là, def football. mais je dirais boxe boxe boxe parce que voilà ça m'a permis de décrocher des rôles tu vois donc je dirais boxe en plus je bah, je suis un amoureux de l'anglais, hein. mais comme on est au Sénégal, bah, on est obligé de dire français. Comme si mon beau anglais, comme un gars de quoi. Mais je suis un amoureux de l'anglais. Comme il dit, c'est. Pour c'est la facilité, quoi. Et quand c'est drame, c'est. Il y a plein de choses, tu vois, des suspens, des trucs qui se passent que tu ne contrôles pas. Je pense que c'est plus intéressant, <laughs> D'où les il est cool hein, mais parce que je suis plus proche de Datignan, ça me gagne le merde. D'où c'est un gars bien mais je préfère Datignan. Là ce sont mes deux couleurs préférées, je dirais blanc. Pas de buzz du tout. <laughs> non, moi je suis pas buzz quoi. J'aime pas du bruit quoi. Tu vois un Moi je veux passer inaperçu donc j'évite tout ce qui est buzz quoi. Bon, c'est une question <laughs> très intéressante. <laughs> polygamie l'a essayé mais je sais que bien de jabar là quoi mais polygamie quand même l'a essayé quoi. là, là, am a droit takk ba de jabar mais monogamie monogamie. na nekk digg bi xeeral rek wala mu nul quoi ok dañ ñuul. moi je tourne la page. Soit je pareil, pas naa quoi. je préfère jàll ci mais honnêtement. Milan <laughs> non j'ai un béguin pour Milan Milan dafa dafa graaw est-ce que gis nga bëru Milan yow non mais bàyyi mu sedd Milan musculation parce que mën naa ne musculation moom moo changé musculation daal cër bu mag laa ko jox parce que voilà man dama dama rage woon dama rage woon dama xiibanoon donc musculation moom moo may tuuti suuf Edu parce que gagne bu yiw la contrairement ak Bouba mais je pense que ñun ñëpp ku ci nekk bo sañoon am gaañ bu mel ni Bouba quoi tu vois gagne bu fën xam nga luy ci yenn affaire yi mais je dirais Edou parce que moom moo ëpp valeur mo gën cool mo gën gentil Edu du la xool sax ci bët gaañ xam rek avoir un frère comme Edou et avoir un pote comme Bouba infidèle parce que rôle principal là fa quoi donc je pense que infidèle la la impliqué ou que vie de mec quoi mais vie de mec aussi voilà quoi faut bokk ci parce que liggéey nañ ci lu am solo mais infidèle quoi bir <laughs> não bu né? então, não non bii du ma choisir de ma ne kii Cheikh não ma choisir parce que maa ngi liggéey ak ñoom quoi. New sera un peu difficile quand même je dirais ZZZ Il y a ay acteurs des acteurs américains comme ku nekk 2 et Andrea Riseborough c'est une très grande actrice donc liggéey ak ñooñu bokk plateau c'est autre chose quoi en plus le projet boo xam te ne tey moo au niveau international mu ngi daw Amérique mu ngi daw Europe et puis voilà quoi et puis am na lu ñu ci tourné fii ci Sénégal donc je pense que voilà 0 0 0 euh, je dirais guide droit parce que dafa a un genre africanité pour nekk ci guide droit quoi pour dégager surtout affaire de royauté voilà tout ça ça m'a toujours intéressé non mais pas am problème de romantisme sérieusement Je am tout jikko caay tchaï quoi mais nag voilà quoi Si moi xasee ba je nag bëgg quoi donc mais je préfère jikko caay-caay bi du bad boy quoi. acteur acteur faut rire acteur je sama voilà quoi au milieu de l'action tu vois interpréter des personnages raconter des histoires. eh Bambilor for real lay wax ni Bambilor laa juddoo fa laa yaroo sama famille fa lañ nekk voilà quoi Bambilor sama xol la nekk Bambilor forever Bambilor bien sûr. jogo ah jigéen bu sew daal baaxul quoi heureusement moom sew de sew baaxul jigéen bu nooy bien sûr jonga ma nag bëriwuma wax quoi acteur life préfère acteur life moom laay gën a utiliser et puis voilà quoi moom moo gën a collé ak li may def quoi dara manager oui mais acteur life actuellement nii vidéo vidéo mooy bomb quoi instant bi moom vidéo quoi laay saraane ñoom infidèle ñoom lii da mekk donc vidéo infidèle Netflix day xaar ba ci kanam quoi ceebu jën yaa même pas choisir <laughs> ceebu jën dafa bokk si ñun gars yi man su ma deux jours rek ma ceebu jën dama koy ndam du coup voilà quoi jalousie bu ëpp laay bañ a am mais jigéen pour man dafa war a capricieuse tuuti quoi am tuuti cas quoi xam nga des xam nga rek ngeen di jote quoi ngeen di jote xam nga rek des bu lay tegal ay jàpp yoo xam ne doo ko sax mën lijjanti yaay xam nga ngay wut solution après jubóo bi neex comprendre je préfère jigéen bu dominante quoi. ku am répondant quoi mais soumise non dominante. jigéen bu am caractère quoi. comme tey dañuy jël initiative. je préfère un gars très honnête man pour man moo gën honnête Sénégal gars boobu Nous mu sentir là, wax man kooku moom laa gën a fiil ko hein, euh, le futur li jàll jàll na c'est derrière nous donc li ci kanam moo ëpp suñu et puis voilà quoi donc le futur. Réalité, bien sûr, mais réalité, fiction, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et puis, ça a été. C'est du faux, en fait. taalu ma fayu ma <laughs> mais su ma doon choisir fay bi moo may gënal moo may gënal taal bi quoi. man nag dama am dama am kii bu jënd quoi dama buy jënd rek boo xam ne dafa nekk ci man lu mu gis da koy jënd su su ma yoree damay jënd rek donc jënd quoi disons jënd. <laughs> New York moo nekk ville bi nga xam ne genre dama ko doon dama ko yàgg rêvé quoi def naa fa benn passage bu ndaw mais je préfère Dakar quoi Dakar parce que voilà Dakar c'est Sénégal c'est nous ñun la quoi. je préfère El parce qu'elle a Hadj Diouf nañu ci ay situation yu 3 h 4 h du matin et puis voilà quoi nous a fait rêver donc Elas Diouf même si ça Mané voilà si ñu mais je préfère Diouf quoi suis bandé en plus Je suis un star quoi. Euh, non je jëli pas Il xaar je non su ma bëggee affaire dem quoi PBS parce que PBS def nañ fi ay son ak ay KRS One te fekk dafa fekk boobu may consommer KRS One PBS laa gën a consommer que Daara J a ay mooy El Hadj ci football en fait. man nag lépp laay lekk ah honnêtement mais su ma doon choisir si ñaar benn je dirais surtout que dama daal dafa xaw a feebare trop gars yi nekk eh, mais su ma la bëggee mën naa la baal lu ne mais su ma la bëggul moom gars mooy loolu quoi. Man, mais je préfère Aimé bëgg moom ma gënal quoi. mega Maïga for real Mega. li ma woon Maïga c'est-à-dire Maïga moo mën dépendre en fait su ma jógee entraînement Maïga laa ëpp lu may may tough, cons quoi. taf taf la man bëggee naa leen gars yi saw yaaw gën a xam.